xam nga damaa yor xale bu ne ci kër gi man tamit dama war a xotti. léegi may ma 300000 rek dinaa ci man a lijjanti quelque affaire. lii kay seetlu ma ko ah de dégg man maa ngi maa ngi doog a soqeeku nag. li nga xamante ne rafet na. wallaahi wàccaayu tabaski gi rek doom. waaw damaa koy demee kàddu nga déglu ma su may wax. waaw waaw jël booyal moo nekkoon sama àdduna moo nekkoon sama tabaski bi kolle ah. moom laa la teg. te boo ma jënd ko tuuti. waaye bii gëm naa ko ndax changement bu rëy bi mu nekkee ci ki am na lu mu waajal. gi nga sama xar mi ci kër gi. ay waay ak a doon sama xarit. waaw daa jongo nag xar moom laa bëgg a jaay. eh yow lu ma dégg. mais la mel gis nga kër gi am na juróom fukki ak juróom dégg. tabaski boo ko amul sax yàlla appal na la ko ba ca ginaar. <laughs> ay eh, béykat xar mi ñaata lañ ko mën a jaay. kii baax na lan kees <laughs> kees hmm. yow buñ ko jaayee kees maa ngi yow ko nu ni jël dañ koy jaayee vingt nga am dix ma am dix waaye loolu bëri na de <laughs> yàlla bu nu vingt rek